misal yàlla bi nga xam ne moo wut suñu jàkkare su coow lu yaakaaroo gën a am ak ñàkk lu dul yaakaaroo gis nga ko dut yàlla dafa bëri yërmande la ak fikira ko laa sunta ko la loolu nag bokk yi te tànk bii nekk képp koo xam ne ak muy tànn la 在的，你那可能电站只有。Dan dia tutup dengan mana? Tapi boleh nak lebih ber pada itu pun stop. Stop apa dia pun yang lebih di dalam الله نبيه مبشر ونصير المول عندنا ci saxaaba mbokk yi fàttali yàlla mi nga xam ne moo ko daal di maay def ngóor ku ma soog di doon ma su su su ku ma soog yàlla nag boo na ci ngóor kenn yëkkati waat ko jox ko ku ma soog kon yàlla yëpp la ko ñeent na mu ginnaaw woo ay ay ay woote ay jamono xamul ci réew yi ay gis nga xool ko yàlla xam na ca kan jox ko ko ñëpp ko nangul ko ko yàlla yi day réew yi te yàlla yi liggéey kon kooku de am benn lu war a mën a xëyee réew mi lu ñu liggéeyee lu ñu وأسطورة كل داود عليه السلام حبيبني ترى فكنت ربنا فوق أن أكل كده فمن واحد يوبي بدل لي مكتوب يسير تسير بدل يعني ما تقول يوبي تكتب يسير يعني ما تقول أما عمتك ما عندكم إنهم عاملين معهم بيزيس maanu woon maanu bu mooy noonu li nga sax ci yow yàlla na ko doxal mbokk yi xadis bii yëpp sax ne ma wax daal ne képp ci yéen sax sàmm la te ëllëg ku ci doon doon laaj dana xamoon mbokk yi maa ngi ñaan suñu borom yow lii di jàll fekk yàlla nga meninggalkan sama anak seperti saat beliau. Jadi, seperti Iblis. Ia piyakar, piyakar kau. Kondodes, boyiti. Langit, terjohadir. Nangawai, yang tidak boleh tersudah. Luar dia, ni ko am ni ngeen ko jox lu ngeen li ñu wut bu leen ko ko jox lan la waaye da ngeen nekk jiitu réew mi te bañ nekk jiitu réew ak li ñu gisee wala maturité wala ethnie wala culture bi loolu da soxla ko waaye ki ki soxla mooy te jigi Sénégal yëpp ci dëkk boo leen yëpp yéewu leen ci jënd pour ci dëkk bu comme ni ñu nekkal foofu lañ soxla jëf liñ do bagaas wax ju ñaaw ñettal ci biir bagaas ñu ne ku jëmbal ci jikko yi dafa jikko yi kooku lay soxla ñëpp am yaakaar ci yéen ñëpp am yaakaar ci yéen ñëpp am yaakaar ci yéen yu te Louga ñoo ko ñoo ñoo ko defar ak le même ci bi yàq ñaar ñu ñu boo tënkuwul ñoo ko yàq kon yaa yéen ñaar ñi am yàlla yàlla ngeen jubal leen te yàlla ngeen jubal yàlla ngeen jubal réew mi te jubal seen te jubal seen i mbokk yi la si saa yoo xool gouvernement Abdoulaye Wade ba ñu xam ne mbaa mbaa mbaa ci ak mbaa ci loolu lañ bokk mbàcce ak mbàcce ci réew mi lañ bokk ñu xam ne réew yi ñëpp ci bokk ñëpp ci jàpp soo ko wu fii fii la bokk wala fii la bokk ñun ku bëgg a doon lay soxla soxla wu fii ci daanaka fii la bokk waaye te te te dee la bokk soxla wu et te lii la bokk soxla wuñ ko lii la bokk soxla wuñ ko ba fekkee réew yi di àttal yi mu nekk ak fu ma ak lépp yi ko soxla mbokk yi ak ñàkk ba nit réew mi réew mi bu doon xaw yaramam mën a six pour cent kon ñu ngi leen di digg ba di leen xaar day am yaakaar ndax waaye yàlla ko tudd yaakaar parce que réew mi sonn nañ réew mi tuuti daal ba bëriwul population bëriwul seen teraanga bari na seen masla bari na te ressource bi nekk ñi nga xam ne bu ko bëgg a jaar nga yor kon nag wala tattaxal naa asyaahum bu leen xam bu leen wàññi suñu mbir joxe leen ku ne la ku ne ku ne la ak sa jëm yore jox ko dañ ne mooy ku bëgg a faj faj waaye waaye ñu xam ne seen kër bi saatoo ngir nekk comme ordonnance mën a fajoo kon dañ koy xam ñàkk jàppale néew yi nit ñaa ngi dee ci ci géej ba tële ak la الواقع أخذنا كور وجسمة فيمكن صنعنا سمو خفة جدودة اليوم زي دي أنا بورا يمكن توجد جديد فقط لأن قبل تكفى بمجيد دور قبل دير الجنة قد تكفي كربون كلون كربون جيدا وقوة وأسفي وأنا جنتك أسلوكي te gën a góorgóorlu ndax suñu borom yàlla subhaanahu wa taala moo ne jëf yëpp mooy rek te mujj kon dañ xam ne mujj mujjub njëriñu weeru koor mujjub njëriñu koor luy fëj bari mujj kon bari mujj yooyu képp ku ko mën la def yaa ngi leen yaa ngi leen ñaar ak baax na ñeent rek baax na soo ma def na koy wujjoo leneen leneen bu xamee dañ koy desaat te leneen bu xamee nee na yoon tamit sama wàllu moo ne képp ku dund na leneen bu xadar def ko ñu jot ak sàpp yàlla yàlla dégg desee bàkkaar kon mbokk yi nañu waxaat suñu suñu loxo ak wobasuwaat fogoruwaat góorgóorluwaat waaye fukki yi mujj yi jël ci bopp li doon amutoon lu doon amutoon sa diggante sa borom comme si yow sax yàlla mooy wax dëgg ndax kat ci ci ci xale yi nga xam ne bii nii nii nii yëpp la sama alayhi salaam comme ci fan yu mujj yi dañ ci daal góorgóorloo daay ko góorgóorlu ci yeneen kon liñ góorgóorlu ci fan yu mujj waaw ñu bàyyi xel baax a baax a baax nga xam ne koor yi pour fan yu mujj ci la def te kat bu ne aw ma doon ko bu baax la njëriñ la di gërëm sawar mu ci gën di wéyal sawar yaakaar naa ku mu gërëm sawar gërëm kon mbokk yan yaa na ma suñu bopp mbokk yan yaa na ma suñu bopp yàlla na toog di dirigé ay at ko woo te lépp lu ci naa ci la bàyyi def ko ci baax wax ko ci lu baax yàlla na ko yàlla nam yàlla na ko yàlla nam waaw taxawaana alhamdulilah